C'est bon C'est bon, hein Si vous êtes prêts, mes caméramans. C'est bon C'est bon, voilà. Inch'Allah, devant les Voilà, monsieur le maire, vous avez tout à l'heure euh, la mosquée. C'est bon. Alors, euh, peut-être que vous l'avez retenu du... Quel message c'est au Sénégalais D'accord. D'abord, on va dire un peu. On va Sénégal, on va y aller. ndokkeel ci bés bu mag bi ñu dem suñu bés nga xam ne dafay firndeel ci jaamu yàlla ay fan ci gannaaw rek defoon nañ ko ak suñuy mbokku kerkeel ñoom it ñu jéggali woon seen koor ci lu mat ñeent fukki fan yàlla def na ci quelques années mel ni ñaari woon ñaari kii pour taxawaay ci Sénégal te ñaari koor ngay daje loolu jàpp ni yërmande ko Sénégal kon lii day firndeel aboutissement dafa ndaw benn weer boo xam ne weeru jaamu yàlla la weeru dellu ci borom bi la ñu ñaan yàlla nangul ci ñëpp te liñ ci diggee tamit jóge ci weeru mooy weeru njéggale la weeru yërmande la première phase bi weeru jéggal la ci deuxième phase bi weeru boreel ci safara la dañu première phase bi ñett yooyu nag ko yàlla may def naa mën ko say mbir baax na kon yàlla ko yàlla boole bi ci yàlla nangu ñu koor jéggal ñu rëcc rëcc yi ndax ñu euh, ñu may ñu teewaat ko teewaat ko ay at mu may ñu kàttan bi ko war a it daal di leen ko di am xalaat ci ñëpp ñi nga xam ne tey waxtu bi waroon na leen fekk ci jumaa yi ak ci jàkk yi comme ñun ñëpp bu ñu paree ci loolu dem toog seen njaboot feete feet bi Euh, ñu xañ leen ko tey te dara xañ leen ko lu benn groupe magistrat yoo xam ne dañoo jébbul fas yéene servir ab nit te non pas servir la loi donc ñu am xalaat ci ñooñu ñëpp nga xam ne tey teg nañ leen loxo loxo su dul dëgg jaay doole ak ci mbirum soxor moo neem weeru yërmande la ñu génn ñaan yàlla jëlee ji fa ñu gën a gaawee loolu nag dama ko wax ci wàllu lu jëm ci mbirum yàlla waaye li nga xam ne mbirum nit lay dinañ ci def liñ ci war a def yëpp ndax yàlla defal kenn loo mënal sa bopp te yàlla duggul yàqu balaa muy jàpp ci li ngay def rek yow bu njëkk a wane sa jàmbaar ak sa effort ba boo demee ba mënatoo boo tàllalee loxo yàlla defal di adressé un message sénégalais yëpp nag message bu bi wax ni ñu ngi dëgmal loo xam ne gëm naa ni juróom ñett ñeenti weer gën a doy waar ci Sénégal mooy juróom-ñeenti weer yi ñaan yàlla nag def jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj tey bu ñu am jàmm fi dañ fi taxaw rek boo ma jël ma ko sànni woon fii léegi journaliste moom xam naa yàgg naa leen gis si terrain bi daw rek la ñu mën si pétard rek wax ma la gën a la si kon sànni woon yëpp dafa kon jàmm ci la lépp xaj jàmm nag ñuy dox la li ñuy liggéey àdduna yàgg naa tàkk. ay guerre am waaye lépp day mel ni balaa ñëpp xam njëriñu jàmm ñu sàggane ko ba ñàq ko loolu mooy nit nit dafa xaw a ngeen jéggal ma may waxu yàlla du sama wax nit dafa xaw a doy di yenn saay yàlla bi muy tuddee nit daf ko tuddee al insaan ci alquran insaan mu ngi jóge ci verbe nasiya mooy kuy fàtte nit dafa gaaw fàtte dañoo gaaw fàtte trop te duñu xam valeur lu ñu yor ñun ñii yaroo fii Casamance nga xam ne ay at ci gannaaw fii biir Ziguinchor da nga daan toog dégg armes yi di dóor ñun xam nañu lan mooy ñàkk jàmm balaa ngay xam nag valeur li nga yor nga ñàkk ko li may ñaan Sénégal yi nag mooy ñu bañ a sàggan ba ñàkk ko ndax léeg-léeg li koy li koy yàq defaru ko fitna bu xasee ba toog li koy yàq defaru ko te li mun a tax nag ñu bañ koo ñàkk mooy àdduna ni mu demee léeg-léeg réeroo mënul ñàkk muy ci biir couple ci biir kër muy diggante baay ak doom muy ay xarit muy ay ñu bokk liggéey léeg-léeg réeroo mënul am moo tax ñu jàngal ñu ni fu réeroo amee rek nit ñi waruñoo seetaan dañoo war a àtte waaye àtte bi nag yàlla ci boppam da ko teg ci charte dafa ne bu ñaari nit tongoo ñëwal nga essayer négocier rafetal seen diggante waaye boo demee ba gis ni kii nangu na te tooñul nga gis ni kële moo tooñ moom mooy dóor mooy tëj mooy rey mooy gaañe lala diine sant te muy lu tegu ci ñun ñëpp nag quelque que soit suñu grade mooy kiy tooñ nga jàpp ci loxoom ne ko bàyyil tooñ bi lu ko moy ñun ñëpp dañuy ànd xeex la ba nga dellu si ci yoon loolu ay alxuraan la man inventé wu ma ko loolu lañ ñu jàngal kon bu ñëpp dajee def loolu jàmm dina am Sénégal waaye bu ñu buggee ndax léeg-léeg ragal dañuy ragal dëgg bi gis nga bu doon tey ñun ñi nekk ci kujje gi ñoo tooñ ñu bëri ñi nga xam ne tey noppi nañ du ñu am problème pour nañu yéen yéen a tooñ waaye bu dee nguur moo tooñ dañuy essayer renvoyer ñëpp dos à dos waaw ñi ngi wax ak politiciens yëpp politiciens yi yërëm leen réew mi déedéet politiciens yi du ñu benn nit bu ñu dajee am problème paw rek am na ku tooñ dañu am sañ-sañ nag ne kii moo tooñ loolu mooy régler problème bi ci tooñ bu ñëpp dajee ne ko yaay tooñ nu mu nu mu nu mu nu mu nu mu soxor soxor soxor dina xoolaat boppam dina dellu gannaaw mais tant que nit ñi ñi ngit ne tecc rek ne màndu nañu dafa mel ni ñoom dañoo sotle ki nga xam ne moo tooñ may lancé appel boobu Sénégalais yi ñu xam ni ñun ñëpp jàmm lañu bëgg jàmm lañu yaroo moom lañu màggee kenn mësu ñoo xamee ay koñ bii ma nekk fii laa yaroo màggee fi kenn xamee moo fi ay sama kër a ngi fii kenn xamul suñu kër ay jàkka jii ma jullee bi ma amee huit ans ba léegi fii laay jullee kon ñun xamuñu histoire xamuñu ay mësuñoo yéene nit lu bon mësuñoo songu nit mësuñoo def nit lu bon yarewuñu ci loolu waaye ci gën ci ñun ñëpp mu yent yàlla Muhammad alayhi salaam yëkkati na jaasi dem xeexi te kenn gënu koo bëgg jàmm bañ na ba diine gi ko yàlla andil islaam la tudd islaam mi ngi jóge ci salaam islaam mooy jàmm waaye dafa fekk li ñu naan muus sax boo ko tëjee ci néeg boo ko puusee ba mu sës day song loolu mooy andi léeg-léeg yii di am kon ñu ngi ñaan jàmm di ko dox waaye jàmm nag ñaar a koy séq benn nit mënul def jàmm tubaab nee na il faut être deux pour faire la mais un seul pour faire la guerre loolu dafa am solo tey Russie bu décidé woon tey à minuit guerre bi jeex guerre bi jeex donc guerre bi mi ngi dépendre ci Russie mais jàmm ji ñaar ñooy toog waxtaan ko di daaneel nag ci suñu li ñu bokk fii muy Ziguinchor euh, di dellu remercier waat population Ziguinchor ci seen confiance ndax tabb nañ ma depuis un an daanaka ma nekk ci boppu mairie bi ñi ngi sant yàlla ñi ngi def liggéey boo xam ne bu am solo la gëw ma ni population Ziguinchor dina am suñ ci génnee politique par parloo kujje population Ziguinchor ñoom ñëpp teg nañu bët ci li ñuy liggéey ñu leen ci gërëm bu baax di ci féliciter tam équipe municipale bi waaye di leen gërëmit ci compréhension bi ñu am ci man ak patience ndax bi may jël mairie bi ñoom ñëpp xam nañ lii sama dimension ci politique xam nañ ni li ma soxla defe naa si moo ci gën a tuuti fépp lañ ma soxla Sénégal mun naa ne sax au-delà du Sénégal ñu ciy sant yàlla nag du suñu mérite mais loolu la yàlla tudd ba tax am nañ ci compréhension bu doy boobu ba nga xam ne bokkuñu ci population yoo xam ne saa yu ñu xëyee maire bi gisuñu ko maire bi ñëwul ndax su ma fi newul it samay collaborateurs yi ngi nii amul bés boo xam ne xëyuma ci mbirum Ziguinchor suba ba ngoon jot moo xam li may lijjanti Dakar bu sottee ma indi fii sotti moo xam conférence ko li nga xam ne daanaka maa ngi koy def ak le bureau municipal di ko def ak le secrétaire général di ko def ak ñëpp daanaka au jour le jour ñu ngi administrer la commune de Ziguinchor léeg-léeg ñu am jafe-jafe ñëw ni ñu ko mënee woon parce que ñiñ ko ñiñ ko seqal seen stratégie yëpp mooy nu ñuy bloquer Sonko ba du mun a liggéey ci mairie ba ak du mun a def ses tournées politique à travers le pays waaye jamono jooju la ñu gën a mun a liggéey. may annoncé nag population Ziguinchor ni soobe yàlla mercredi bi dinañu lancer d'ailleurs les douze grands travaux de la mairie euh, ni ma leen waxoon rek Ziguinchor dinañ ko liggéey ba Ziguinchor yëpp gis ni nu ñuy liggéeyee jël nañu at pour stabiliser mairie bi càmbar lépp xool lépp li ci ëppoon ñu wàññi ko li ci matuloon ñu yokk ko defaraat fonctionnement bi defaraat organisation bi euh, lancé un certain nombre de chantiers et de travaux waaye bu soobee yàlla ci diggante boobu it jël nañu temps wu concevoir finaliser les grands projets yoo xam ne mu ngi woon ci suñu programme bu rok yooyu nag dinañ ko lancer mercredi bi bu soobee yàlla bokk na ci l'aménagement d'espace public parce que dañu bëgg Ziguinchor nit ñi di am fu ñuy doxantu jee fu ñuy toogee féexlu ay place verte bokk na ci l'aménagement de plateau sportif te bu ci njëkk mooy le stade Jules François Bocandé nga xam ne on va le mettre aux normes internationales bu soobee yàlla bokk na ci euh, voirie bi lu bëri dinañ ko lancer ci ay pavage yu ñu war a def ak ay euh, aménagement de route pour ñëpp mun a de facilement seen quartier bokk na ci tamit euh, les postes de santé ak les écoles bokk na ci ñaari marché yu bees yi nga xam ne bëgg nañ ko tabax muy marché au poisson ak marché aux produits agricoles pour désengorger marché Bukot bi dinañu lancer aussi officiellement économie sociale et solidaire parce que dama ne woon mënoon nañu yem ci liggéeyu mairie kese waaye bëgg nañu xool nu ñuy jàppale jigéen sooroa yi daa orat na ndaw ñi ak jigéen ñi avec de petits financement pour nit ñi liggéey biñ ko lancé quelques mois ci gannaaw fekkee woon ngeen ko et dama ne woon suñu atteindre cent millions ci levée de fonds yi mun nañu commencé di tourner ndànk-ndànk yàlla def na atteindre nañu montant boobu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, ci suñuy programme phare la bokk l' publique public lampadaire solaire yi nga xam ne surtout quartier yi nga xam ne ñoo gën a manqué éclairage yooyu les douze travaux les douze grands travaux de la mairie soobee yàlla mercredi dañu invité tous les Ziguinchorois def lancement officiel bi poser les premières pierres pour yenn chantier yi nga xam ne dafay demare ñuy woo Ziguinchor yëpp ñu jàpp ci parce que dëkk bi ñoo ko moom kenn du ko defar ku dul ñun dëkk boo gis mu baax ci àdduna waa dëkk ba ñoo ñëwee sonn ci dëkk bi mais kenn ku ne su toogee fi mu toog ne sama yoon newu ci ba pare naan maire bi defarul pavage bi maire bi andil poto lampe maire andil maire bi du ay milliards yu mu yoral boppam bi muy ñëw joxe donc ñun ñëpp ñooy ànd jàpp si defar dëkk bi pas pour ñun mais pour suñuy doom au moins ñu am un cadre de vie boo xam ne day méngoog li gën ci àdduna loolu moom mooy euh, message bi ñuy adressé waa Ziguinchor particulièrement